asalaamaaleykum sama gaay yi tey nag wolof version ba la ñuy def parce ñu bari dañ ma koy laaj tey nag ñu ngi def suppu kànja bu ne muut muut muut waaw am naa sama kànja ni laa koy dagatee nag man commencement bi après ma koy blend parce que kenn amu fi jot ne toog di dogat kànja comme niñ daan def ba pare maa leen di won jën bi yéen ñi ko xam-xam ngeen lim saf ñu ko xamul nag di ngeen ma tànk lay ra saf la def Chinese yi ñoo koy jaay Asian stores yi so ut leen ko di ngeen kontaan ba pare ma am samay crab am samay lobsters ak samay shrimps duma si def yàppa nag parce que man léegi bëggatuma yàppa si suppa maa ngi am suma pacific whitening bu ma te use tam Kroger ñoo ko dee suma duutiir bu baax bu xonxaa ngi bu pare ak suma koŋ xaaf koŋ lay def na parce que réew mi fi tollu la yàqa koŋ amatut def suma kaani xeeñ yu rafet ak suma liñoŋ ngi soose pour sama gaa yi xamul lan mooy liñoo ngi soose mooy oignon vert green onions kànja bi nag léegi danga koy def si blender bi def ko like halfway bu ko def mu nekk full bi ko soo ko defee full ni ko bëggee mu polsee ko du dafa moo ko trop te I don't like that so halfway nga koo def mu nekk si blender bi gis ngeen after soo leen ko pause turn out to xam ngeen lii ak toog di ko dog yëpp benn la so thanks to food processor ma fàtte woon sama jaxatu bi sama jaxatu bi mënut a ñàkk léegi nag mun nañoo ñuluk 12 cups of water rek lañ soxla léegi suñ cin baax na su baxee rek mun nañoo sooti suñ affaire yiñ ñu dëbb mooy suñ soble beeg kaani beeg ñoom seen léegi nag after buñ mayee suñ soble yi baax about five ten minutes mun nañoo def suñ kànja sotiku ko yëpp nag yëngal ko ndox bi moom maa leen ko ñaan bu leen yokk ndox bi parce que kànja dafa am ndoxi boppam lii dina baax mun ngaa foog ne eh, dafa dang torop right now but after you will see ne it's okay gis nga affaire si nu muy demee nag mu ngi baax mu ngi baax ndànk medium heat nag ngeen ko nekk di def dëpp ko tuuti half dëpp rek léegi nag ñu ñëw def suñ koŋ right now ten after bàyyi ko mu baax tuuti rek moom tam def sa léjum sa kaani bu dijee suma jaxatu jën bu lakka bi dañ ko def si oven bi parce que daf di so pour mu di defrost dañ ko bake rek on 350 for about 30 minutes right now mën nañoo def suñ juutiir nag léegi nag ñu yëngal ko gis ngeen sama duuteer ni mu baaxee bàyyi ko nag mu nekk di bax about twenty thirty minutes bu leen ko duppaat nag léegi suñ smoke milk fish bi pare na te ngeen koy xool di dindi der bi rek saani amul yax amul benn coono bum laa jox ba pare safaayam moom amul fen yéen ñi xam ko boobu la ka lii moo ko gën a saf si man laa la wax safaay li amul fen ñoo ngi dem de léegi ñu pare de léegi ñu pare léegi nag nañ def si euh, jën suma fish filet bi ma def moom laa ciy def right now because xam nga filet dafa gaaw a ñor léegi def suma blue crab def suma ñoom lobster tail def suma ñoom euh, bagage yu baax yi daal ñoom sipax ñoom shrimps yëpp ci biir bàyyi ngeen xel ne time bi ma defee suma seafood bi suma lii bi ñeer na suma suppa bi ñeer na parce que seafood dafa am ndoxi boppam te dafa gaaw a ñor nii dul mu toogal lu bari léegi the last mooy ngeen add seen smoke milk fish bi fekk safet ngeen ko ba pare then after five minutes rek ngeen fay seen suppa pare lépp neex bee baax léegi comme que ñu ngi si ending bi right now def ngeen seen seafood seen bagage yëpp léegi mun ngeen a mos seen xorom ngeen sàppali bu safutee seen magi wala kinoor wala any seasoning boo leen di use rek ngeen sàppali ko waaw kay ana ko doon xaar suñ suppa kanja pare na duutiir bu em bugguma duutiir bu bari bari bay tumba nag duutiir bu mel nii baax na nii daal laa ko bëggee ban xanaa kontaan ngeen sama gaay yi sama suppa kanja nag nii laa dee bëgga muy mel consistency bi sama bugga muy flow bëgguma supa bu dang dama bëgg mu firi yéen a ma gën a xam daal waa léegi invite naa leen nag sama gaay yi suppu kànja bi pare na defar naa fufu si côté bi nele waa process yi fufu moom dafuma ko pak si yaaw maa ngi doon yàkkamti di am yeneen yu ma nekkoon so waaye invite naa leen sama am di jaama yi sama soppe sama xarit yi yéen ñi may bëggee di ma safoo di leen wax jërë ngeen jëf seetaan bi di ànd ak man saa su ne di kontaan ci li may def daal maa ngi di wax jërë ngeen jëf jëf jëf jëf subscribe leen ci channel bi hit the like button hit the notification button aw ma seen fay kaay leen ñu añak nag garab yu baax yaa ngoog ak sipax yi lobster tail baa ngoog ma tegal ko side jaxatu baa ngi kaani xeeñ bi mu ngoog daal pare na kaa leen añ yéen a ci des